onsu billaahi mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim barke borom Touba barke borom Touba barke borom Touba jërëjëf jër Salihu jërëjëf Serigne jër jërëjëf Serigne Salihu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci géeri géeri Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di gërëm sunu sang ba Serigne Salihu Mbacke di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu Cheikh Mouhamadul Basir yàlla na fi yàgg lool te wër ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour yalla fi yag te wër Serif ablay Thiaw yalla fi yag te wër sunu bay bi ci law nañu sen ak sunu bi bi ci Medina bay yalla fi yag lol te wër sunu bay bi ci ba ak sunu bi bi ci Ndiassane yalla nañ fi yag te wër Serigne Cheikh Jëmb Fall yalla fi yag te wër Serigne Mouniru Njegeen yalla fi yag te wër sunu Alpha ak sunu karmam rawan maam Rawane Ngom ak sunu karmam kër Cheikh Omar Foutiyou yutal yalla ñu fi yag lol te wër di ñaanal bépp kilifa diine bu nekk Sénégal yàlla na fi yàlla nañ fi yàgg te war bu ñu naal rek yàlla nañ ko àggale ci barke yaa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal président Macky Sall yàlla na ko yàlla may jàmm ndax bu amee jàmm réew mi am jàmm ñu koy ñaanal it lépp loo xam ne def na ko it yàlla na fekk mu tombeel ngërëmal yàlla sunu borom waaw tey nag dañoo ñëwaat ci émission bu mag bi di leeral seen mbokk Serigne Bass Bamba Xéwal ñu bëgg leeral ay mbir rek waxtaane laabirante biir kon ñu wax alaykum mbokk aduna bëpp rawat na wa Sénégal ñu ñaan suñu ñëw bi yàlla na fekk yéen ñëpp ngeen nekk ci jàmm jërë ngeen jëf ñu ñaan na ngeen di abonné tey partage vidéo yi ndax xewal TV moom télé askan bi la te ay xewal doo nga ci nekk kon tey dañoo ñëw émission leeral ci ki ñuy wax Youssou Ndour Youssou Ndour mi nga xam ne ab coow da koo topp jamono yi ñu toll yëpp foo tollu yaa ngi dégg yu sundur maanaam soxnaam da ko bett maanaam ak beneen soxna ñuy def naka sudul noonu ba soxnaam duma ko ci site internet boo jàpp da ko cay dégg maanaam àdduna bépp di ko ngawte ngawte man nag lépp lu may wax dama naan bu dee dëgg la ndax fekkewuma ci nit ñi rek nga ko dégg te internet bi bari na lu ñuy wax loo xam ne boo ci sukkandikoo da ngay réer bari na lu ñuy wax loo xam ne du dëgg moo tax ngeen di dégg ci samay waxtaan bu dee dëgg la li ma ciy wax bu dul dëgg it li ma ciy wax. Youssou Ndour da dégg ñu naan moniment la Sénégal moniment monument mooy loo xam ne lu rëy lay doon te fees ñëpp di ci jàkk di teg seen bët mbokk yi. Yusnur Ndour monument lan la monument bu baax la wala monument bu bon la da ngay dégg ñu naan Youssou Ndour référence la royu kay la mbokk yi est ce que Youssou Ndour jar roy wala to roy man nak suma ne so suñ ma lajol Youssou ndax jar roy dama naa jar roy ci ben fan mais to roy ci nga ne ba fan lañ koy royé mané la ubbi na entreprise jël fa ay doomu adama ñu fay daan seen doole mu leen di fay ñuy jundal seen ñuy dundal seen i njaboot kon bépp borom alal war nga roy ci Youssou Ndour ci côté boobu fan la jatta royé nag mooy mag mu dem ba am juróom benn fukki at foo ko fekk ma ngay pàkkar di di fecc di dajale ay góor ak ay jigéen ci benn bërëb di pàkkat ñuy fecc loolu jar toroy mu tombeeg nag jamono bii nga gis Wally Seck Sidi Diop ku nekk jël woyu Youssou Ndour di ko way ba mu indi coow lu bare bare bare bare te jaru ko woon ñii naan war na kii lii jaadu na ñii naan lii jaaduwul Wally dafa baax Sidi Diop moo baax ñoom ñoo dañoo roy Youssou Ndour ba jël woyam di ko toppandoo ba mu andi buzz bi mu andi ni ak ciow li mu andi ni Youssou Ndour ñu wolbatiku dem ba fal ko fi ministre ci senegal ba fi may waxe ni ministre conseil la yore ndom tank bu reuy ci senegal kon Yusuf Ndour li ñu la waxal ni bu de deug la tek nga sa mbokk yep gatch bu de deug la ndax mënu ñu la fal ndom tank ci suñu Sénégal gii di la fay par ci sunu xaalis jox la oto ci sunu xaalis maanaam di la fay sunu xaalis léegi nga war a jubbante xale yi nga xam ne dañuy bàyyi seeni jabar yi dem ci rakku jaambur yi wala magum jaambur yi yow nga war a nekk référence wala nekk royukaay ci lu baax ñu lay jàpp ci nga bàyyi sa jabar dem di doxaani ba ñu ba sa jabar fekk la fa di la toroxal ba ñu naan dalaa duma ndax ku tooñ daa neex a duma nga nit bu tooñee dafay neex a duma xale bu tuuti sax mën na laa duma mu ñëw nag ci waa TFM am nañu benn émission bu nuy wax xalaas xalaas Ndoye Bane di ko def ak mu Mouhamadou Mouhamad Ndiaye ñu koy def ak Aba saa bu nu xëyee mbootu jàmbur lu jàmbur def lu nit def la ñuy jël ne ko weng ci taabal ji di ko ŋawte ŋawtee saa bu nu xëyee suba mbootu jàmbur la ñuy jël teg ko ci taabal ji di ko weer te ñooñu ay nit lañu dañoo ami ndey am ami bàyyi am ay doom ñoo def ak defuñu ñoom bu nu xëyee Ndoye baan ak Mamadou Mouhamed Ndiaye bu nu xëyee maanaam kawteef rek wala njombe rek lañu bëgg a gis ba teg ko seen télé boobu muy khalas wa legi est ce que Youssou Ndour lii mu def jarul khalas Youssou Ndour bàyyi sa jabar ci couvre feu bi nga bàyyi sa jabar tàggoo da ngay dem réunion ba muju fanan fa bañu bet la fa ak bañu bet la fa ak jigen sa jabar duma la ba wa koñ bépp gis ne duma nañ la Sénégal gep xamne duma nañ la toroxal la est ce que loolu jarona khalas waye bu ngeen ko khalasulit adna bi yep khalas nañ ko yëg nañ ko gis nga yàlla su lay weer weerug yàlla moo gën a ndax li ngeen di wax ci yeneen nit ñi nit ñi mën ko bañ a gëm mais yàlla su lay weer bu lay weer ñëpp koy gëm ma gis TFM waxi yu sundur ji doo dégg ñu wax ko lépp loo xam dal la ci yu sundur wala njabootam doo dégg ñu wax ci dorog bi ñu jàppoon ci doomu Ahmed Amar bi ak te kooku goro la ci Youssou Ndour maanaam mooy bërëm këru doomu Youssou Ndour waa TFM waxuñu ci dara te dañoo jàpp dorog ba ñoom xale yoo xam ne da doon fóon da doon fóon dorog dorog bi gën a seer ci digg couvre-feu bi lañu nekkoon di def suwaare di fóon ay dorog di fóon di fóon ba am ku ca dee goro Youssou Ndour ma nga ca woon déggoo TFM wax ci beneen njombeegi noonu déggoo tës wax ci Mouhamad Mamadou Mouhamad Ndiaye borom revue de presse déggoo mu wax ci fan yi paase suñu kilifa gu mag Serigne Mansour Sy Djamil mi nekk Dakar yàlla def mu wàcc liggéey ñu xëy suba waa TFM Mouhamadou Mouhamad Ndiaye jël revue de presse. ne kilifa jaar ci turu kilifa gi ne doomam moo ko bojj ay paaka ba mu dee ne doomam moo bojj suñu kilifa gu tedd gii Serigne Mansour Sy Djamil bi nekkoon Dakar ñu ne doomam moo ko jam lan moo tax mu jam ko dafa considéré maanaam téewul doomam fonkul doomam moo tax ñu jam ko ay paaka ba mu dee wax ju ñaw te enquête bi mu ngi ci loxoy gendarmerie enquête bi pareegul ñoom ñu xëy suba bind ci seen journal jaar ci tur sëriñ bi maanaam ne doom ji moo ko boo ju ay paaka ba mu dee traité ko traitement bu ñaaw a ñaaw a ñaaw ba waa Tivaouane sax dañ cee mer léegi nag pour lan seen patron bàyyi jabaram dem di doxaani ñu jàpp ko duma ko ba muy bëgg a dee pour lan bindu leen ko seen journal pour lan waxu leen ko seen rajo te lu ngeen dégg maanaam nit def ko di ngeen taxaw weer ko ba mu mel ni géej géeju Tamba Dieng mais pour lan seen patron wala kenn bu defee njombe du ngeen ci wax loolu nag du jikkoy journaliste ji koy naafeq la journaliste bu mu xool kii fii lay liggéeyee bu mu xool maanaam bu mu xool lii lii moo am ay sàng naa ko sàng suturaak na wax ni mu demee te bañ cee yokk dara journaliste loolu lay loolu mooy liggéeyam mais maanaam goro yi Ndour dem ci benn soirée ñuy tox maanaam ñuy naan sàngara di dajale ay góor ak ay jigéen ñuy fóon dorog ba am ku fa dee rajo yëpp xëy di ko wax TFM déggoo ci làmbañam déggoo fenn ñu wax ko TFM Serigne Mansour Sy mii mu tedd mii yàlla ko yàlla yërëm maanaam mu faatu ngeen xëy suba teel ne doomam moo ko doon bojj ay paaka di ko bojj ay paaka ba mu ba mu faatu xaaru leen ci kenn léegi seen patron ñu jàpp ko àddina bépp di kaa nga ngawte ngawtee revue de presse pourtant da ngeen ne revue de presse maanaam bu ngeen xëyee suba da ngeen ni jàng li nga xam ne maanaam xabaar yi nga xam ne ñu ngi ko bind ci journal yi loolu mooy revue de presse te journal journal yi nga xam ne maanaam presse bépp journal yi génn yëpp tey tey tey maanaam Bougane Gueye lañu dal keroog bi ngeen di traité bi ñuy traité information bi naan am na benn woykat bu mag yeneen tele yi ñoo ko doon def ndax télé yi dañoo am benn link yi dañoo am benn boo xam ne lu leen arrangé ñu génn ko lu leen arrangé wul duñ ko génne kon mbokk Sénégal da yéen ñi nga xam ne yéenay sénégalais yi dee leen xool ñan la ñuy tànn. ñan la ñuy fal ñan la ñuy jël teg suñu kanam mais bu ñu jëlee ay bandi jël ñoo xam ne yàlla ñoru leen yonent bi ñoru leen seen bakkan rek moo leen ñor ak wut xaalis rek moo leen ñor ñu teg leen suñu kanam au ñu tëj auberge yi au lieu ñu moytu njaalo gi au lieu ñu moytu sàngara si au lieu ñu moytu carte gi mais lépp boo demee fekk leen ci ñoom. ngay fekk ci casino yi wala seeni doom ñu yore xaalisu Sénégal di ko carte ñoom ngay fekk ci boîte de nuit yi ñuy baatara xaalis bi ñoom ngay fekk ci bëri bi ñuy jaay sàngara seen doom yi léegi nag ñun sénégalais yi pour lan ñuy gën a sonn bis bu nekk ñi ñuy jiite ñoo baaxul ñi ñuy jiite ñoo dul ay gor ñi ñuy jiite ñoo amul ngor ñu ñuy jiite ñoo gëmul yàlla sunu borom ñu ci bari gëmul yàlla amul ngor ndax ku gëm yàlla dina confinement baa ngi nii ñu tëj nit ñi ñëpp jaaxle ñëpp xamatu xamatuñu fu ñu jëm yow nga wëlbatiku amoo lay def lu da nga da ngay tàggoo réunion réunion pour lan maanaam dem ci beneen jigéen bàyyi sa jabar dem tëdd ak moom ba sa jabar di la fekk di la toroxal léegi kooku kilifa la est-ce que kooku jar naa roy est-ce que kooku monument la te xale yëpp Youssou Ndour la ñu roy koo wax mu ne. Youssou Ndour laay roy mais bu dee royukaay nga dafa am noo war a noo war a mel am na loo xam ne nit da ko war a jombale boppam soo bëggee dégg-dégg daal tele yi nekk fii ak rajo yi li leen arrangé dañ koy wax ba mu jeex mais li leen arrangé wul doo ci dégg seen kàddu loolu nag ji koy naafeq la am na borom télé yu bari am na borom télé boo xam ne daf fii la ëmbaloon fii la ëmbaloon waaye déggoo téléem wax ci te téléem ñoo dàq wax lu ñaaw. am na benn borom télé fii ku doon liggéey ci moom la ëmbal mais téléem déggoo ñu wax ko ci te télé moo dàq a wax ci ñaaw ci télé lu ñaaw ci télé sénégalais yi bàyyiwuñu Macky Sall bàyyiwuñu Idrissa Seck bàyyiwuñu kenn bu ñu xëyee lu ñaaw rek la ñuy teg dara nit ñi te seen patron ëmbal na fi pour lan génn waxu leen ko TFM ñu ngi nii ñoo dàq a wax lu ñaaw ku bëgg a yàq di rek tës nga jëm wala xalaas ku bëgg a yàq doomu aadama danga fi bàyyi police damay faral di wax nit bu la defee dara nga bàyyi police bàyyi tribunal bàyyi gendarmerie dem xalaas wala nga dem tës jubloo ci am dëgg jubloo yow la boo demee yoof noonu boo demee Touba Bakhye noonu boo demee Tivaouane noonu nit ñaa ngi dee comme ay weñ yàlla may la ay milliards nit ñaa ngi toog amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu fajoo taloo kenn dimbalewoo kenn lu dul manam di jël xalé jigéen yi manam di tëjoog ñom ba sa jabat la fa fekk di la duma lolu xam ba ni jom mënu ko passé wala nga joggé fa né da ngay dem massé wu ji ci ay jigéen lu la fa dal yow la jigéen warut ta massé goor goor je ci goor ña jigéen je ci jigéen ña so déggee yalla naan bu len jégué ndialo lu melni rek motax tax ndax jigéen gi bu la jappé di la raay di la bëss mais bo dee góor day tag sa séram bu tàngee nga def bu ko ta def motax ñu la bu jégué lii rek la mbir yi demee kon ñu ngi topp lii ba xam fan la wante di bu njëkk bu njëkk bu dee Ousmane Sonko moo ko def jàppal ne chef de quartier sax dootu ko nekk Sénégal chef de quartier dootu ko nekk Sénégal bu dee nag defu ko lii mooy yoon ba nga xam ne moo ko yóbbu présidence lii nii bu dee defu ko bu dee dañ ko koo jiiñ di ko ko sosal ñi ko jiiñ moom am nañu problème ndax yoon la boo xam ne directement palais la jëm 2024 bu ko fi yàlla bàyyee bu dee sos bii lii sos la. kon ñee naa Ousmane Sonko waaye bu dee dëgg la de yërëm naa ko ndax dootuñu ko wàcc ba ilaayu mi dini fu mu taxaw yëkkati loxoom di campagne bu paree dinañ fa taxaw si loxo ni kii cagala bu leen ko wooteel. bu dee dëgg la nag fu mu taxaw den taxaw ne ànd nañu Ousmane Sonko ndax tuuma baaxul asgoor kenn du ko tuumaal bu dee dëgg la mi ngi sunu kanam bu dul dëgg mi ngi sunu kanam yàlla fi yàlla bàyyi ñun ñëpp te nit ñi nañuy dimbalante yéen ñi yore ndomba tànk yi dimbale leen ñi amul. nit ñi sonn nañu gis nga ni malaakal moo ti def nii di roñ rek di yóbbu saa boo jàppee rajo boo xëyee kilifa ponk lum kilifa bàyyi fi ay milliards yu bëri malaakal moo ti ni la ciix yóbbu la te boo ñë dootoo ñëwaat fii bu la nit gisee dalaa fekki gars yi xalaat leen dee mais nag ñii duñu xalaat dee suñu njiit yi duñ ko xalaat lu leen neex la ñuy def moo tax yàlla nañu yàlla yërëm seen bokk sëriñ bas Xewal mo ñëwoon tay ji pour wax seen émission leeral bi di top na ka bi ba xam fa la jëm lu ci mëna am rek di ngeen ñu dégg bu dee Ousmane Sonko def di ngeen ñu dégg bu dee deful di ngeen ñu dégg waxunu mo def nag waxunu defunu deful waaye dal ñi ngi top di déglu enquête ba xam fa lay mujjé fu ñu mëna toll ci suñu di wax allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman barke borom Touba barke borom Touba ma Serigne salim Mbacke jere ngeen def